Honorable Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre du Budget, honorable député. Monsieur le ministre, ce budget 2023 mu ngi 30 milliards 598 millions 956 954 soit une hausse de 7 milliards 281 345 281 millions 345 859 euh, ma 2023 bi wante man damay rejoindre sama sama collègue bële ci ni budget bin la défal dafa touti ndax jeunesse comme niko ko waxé moy mooy avenir u réew te li nga warona def sax moy xol no nekkee en collaboration avec le ministre de l'artisanat parce que dama japp ni jeunesse am na ci loo xam ni soo ko ci taxawoo rek taxawu nga taxawu nga euh, réew mi yépp man Tiwaawan laa dëkk chaque jour ma ko parce que nag bu ku nekk waxalee fa nga dëkk yàlla mën na def Sénégal gi gépp dina daj Tiwaawan dafa amoon benn centre de formation boo xam ni moo jàkkaarloo ak police ba centre boobu bari na ñu fa génne ñoo xam ni tey jii may waxee yow ay ingénieur lañ ñii nekk euh, ñoo xam ni tey am na taxawaay bu am solo ci département bi mais centre boobu fa mu mujje mooy léegi logement wu police la ak yeneen i nit ñoo xam ne da ngay dem rek fexe ba am fa sa néeg wala nga am fa foo mën a nekk man pour man loolu monsieur le ministre war nga ci xoolaat bu baax a baax ñëw ñu saytuwaat centre boobu dekkalaat ko jeunesse su bi nga xam ni yëpp ci dawal Jakarta ak dem di def manœuvre ICS ñu mën leen a delloosiwaat former leen ñoom ñëpp ba ku ci nekk am sa xëy ndax nag nit su amee métier bu xëyee du dem di toltolaani fenn monsieur le ministre wax nga ni am na ñetti. ñetti centre yo xamni service yo xamni euh da ko ajouter ci sa ci sa doxal sa doxalay ni ngay ni ngay doxale say say li mudi di bi ci jitu di ANPEJ mudi l'agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes bi ci top di PRODAC programme des domaines agricoles communautaires ak PPJ amna ben jamono euh, euh, jeunesse et euh, euh, l'employabilité def nañ ci benn séminaire Tivaouane ñu gis fa ay jeunes yo xamni, ni ay jeunes entrepreneurs yo xamni, ni ñii ci agriculture lañu lañu lan leen lañu la ñu nekk ñii nekk ci ay transformation fruits et légumes ñii nekk ci transformation euh, ay céréales mu nekk lo xamni, tey ku ci nekk sa propre moyen nga jël investir ci loolu ba ñëw ex def exposition boo xam ni bu am solo ma jàpp ni lu mel ni ANPEJ lu mel ni PRODAC ak euh, PPJ buñ leen informé ci lu ci nekk boo ci bëggee dugg fi nga war a jaar ngeen financé leen ñu mën a demal seen bopp parce que koo xam ni nag joxoo ko dépense joxoo ko dara mu def réalisation am solo japp naa ne suñ ko jàppalee wax deug yalla réussite dina ci am benen bi ci des muy wax naa ko bërki démb Tivaouane village artisanal bu bes bo xamni boy dugg ci entrée Tivaouane ci EDK ba ma nga fa défar nan ko pendant des années tëj ko ko mais pourquoi village artisanal bo munu yow ministre de la jeunesse munoo munoo ci comme lima lay wax en collaboration ak ministre de l'artisanat ngeen dekkalaat ko cantine ya fa nekk ñu jox ko jeune par jeune bu ko defee financer leen ñu mën a am seen xëy parce que nag li mu wax léegi ministre de la jeunesse bu njëkk daanaka moo nekkoon ministre bi ëpp coow parce que sax da ngay dégg ministre de la jeunesse parce que moment boobu ni mais léegi pratiquement man xaw ma dañ dañ la war a defal publicité xaw ma lu la war a defal ba nga xam ni tey ni ministre daan siwee noonu la ñuy siwee Tiwaawan nag ku fa gàmmu si na nga jàpp ni kër goo dugg lekk wala nga naan wala ñu tegal ay ginaar borom jakarta yi ñooy daw course par course wala chauffeur kalandoo yi wala ñeneen ak ñeneen dem yóbbu dépense gan ñi man cee man cee jëfandiku loolu nag dama jàpp ni dëkk bu mel noonu nga xam ne à chaque fois mu ngi accueillir ay milliers et des milliers de personnes war nañu fexe ba jeunesse bi ñu ñu jox leen seen gëdd mais boo nee Tivaouane ñu ni ah fofu dëkku ki le mais Tivaouane bëgg nañ lu baax bëgg nañ lu baax centre de loisir yi nga xam ñu ngi koy implanter ci dekk yi mais pourquoi Tivaouane mënu ci am fexé ba tay ji jeunesse su Tivaouane bu ne ministre de la jeunesse ñu gis ci seen bop loolu lañ ci amone lu ñuy wax je vous remercie. merci honorable honorable Salim Dieng à la parole honorable.